messieurs, le show électoral ñu dalal Coumba Dieng Diakhaté ñu ngi ñëw ak yéen léegi ci ñaareelu xaaj bi émission bi ngir àggale waxtaan ci diggante ak moom merci. le show électoral ma ànd ak euh, Latir Mané bu euh, quotidien L'Observateur ñu invité tey jii euh, madame Coumba Dieng candidate à la présidentielle. donc ñu sóobu si ñaareelu xaaju waxtaan bi li ñu koy tàmbalee nag mooy suñu mbokk yi nga xam ni. fi askano askanoo bàyyi ko fi dem daani seen doole bitim réew waaye tamit am rol bu am solo bu ñuy joué euh, ci koom-koomu réew mi madame Diouma Dieng euh, lan mooy sa programme par rapport aux émigrés euh, lan mooy sa programme par rapport ak seen dellusé wala seen des foofu ak seen karange wax naa ko barki démb moo tax ma ne xëy na doo ma suivre régulièrement wax naa ko barki démb sama déclaration à la télévision gis nga suñu émigré yi ku sañoon toog sa dëkk yenn yu ci bari ñàkk ba xelam ñuy nekk d'une famille issue en général d'une famille très modeste am jom lool dañu bëgg seetaan seen ni ndey ak seen bàyyi di leen bàyyi ci xiif boo añee tey doo xam ndax di nga reer doo xam ndax suba di nga ndékki boo leen gisee ñuy dugg ci bato bi di xaru di dem wuti liggéey bitim réew parce que du ñoo am jom te ñu bari sentiment moo leen yóbbu bitim réew ak yërëm seen waajur yi yërmande rek moo leen yóbbu bitim réew bu ñu amoon li ñu soxla Sénégal du ñu dem du ñu dem te kat ñu ngi participer ci économie du pays bi économie pays bi parce que daanaka ñaata milliards la ñuy dugal par mois immigré yi ngay gis. voilà donc le constat est là mais comme on dit souvent c'est le show électoral il faut ñu see teg baaraam. alors lan mooy sa programme lan mooy sa programme par rapport ak euh, immigré yi. Euh, la politique d'immigration fexe nu ñu dellu see ci réew mi. ñoom ñëpp. xam nga yow li nga bëgg a teg gouvernement day metti man je suis sûr que je deviendrai la la la la prochaine présidente de la République mais bu ma teg lu ma attention parce que danga may bëgg a loo wala nga teg ma loo xam ne nii ah non madame ah non. bu ëllëgee ah du ma ko mën a ah waaw danga may bëgg a teg loo xam ne bu ëllëgee ñu na moo ko waxoon TFM je pèse mes mots. très bien. ñaata immigré moo nekk tey bitim réew xam nga nombre bi. na waa ñooñu yow da nga bëgg ma ne tey suñ ma fal buñ ma falee ñoom ñëpp ma indi leen Dakar déedéet bëgguma dara man damay laaj rek madame bëgguma dara buñ ma falee nest xam na ne bëgguma dara dama bëgg rek mu leer pour les man ju ma jaxate suñ ma falee waaw dinaa def sama kenn kattalaay pour ñu mën a ñibbisi ci réew mi ñoom ñëpp du ma ne dinaa leen fexe ba ñu ñibbisi de parce que am na ci ñoo xam ne seen conditions yi fa ñu nekk macha allah mais madame loolu am na ba pare am na programme bu gaa yi tëral pour euh, dimbali immigré yi jox leen ay koppar ñu war a dellusi ci réew mi mais daf mel ni loolu ba tey doyul loolu moo tax ma ne la. jox nañ leen koppar bu doy. mu la lay laaj ni xam nga immigré yi fi ñu nekk lu fi nekkul woon. parce que immigré yi fi ñu nekk tey seen SMIC rek SMIC laa wax de. Mhm. fay na fonctionnaire bu mag. la mooy la mooy SMIC. SMIC mooy c'est le plus kii euh, salaire minimum. Ah, bi ñuy fayeeku foofu. waaw de telle sorte que salaire minimum bi ñuy fayeeku fi ñuy liggéeyee wala bu ñu góor góorloo foofu mën na fay grand fonctionnaire u sénégalais xam nga ñooñu aussi xëy rek ne leen ñëw leen ñu jox leen xaalis tuuti xaalis ngeen ñëw daan fi seen doole ñibbisi ñoom du ñu ñibbisee noonu ñu koy teg ci dëgg. non non attention attention madame. Voilà. attention euh, c'est vrai que le SMIC euh, foofu euh, en Europe mën na fay euh, mën na fay euh, benn haut fonctionnaire comme ni nga ko waxee fii au Sénégal. Mm-hmm. mais kuy fayeku par exemple SMIC fële dugal. ak kuy fayeku euh, SMIC Sénégal yéenay bokk ay problème bu ngeen fayee li ngeen war a fay doo leen dese dara c'est les mêmes les réalités ak euh, le pouvoir d'achat yàlla ah, waaw donc damay bañ rek xelu sénégalais yi jaxasoo loolu moo tax booy di gën a bëgg a dem bitim réew le SMIC boo ko fayee ko Sénégal ak nga fay ko tugal ak nu mu mën a toll li nga si mën a faj fii kese nga fi mën a faj fële c'est dëgg-dëgg parce que SMIC bi du fay sax sa location waaye maa ngi na fay fonctionnaire je vais bàyyi ba ma dikk hmm. dinañu am lu ëpp li sénégalais yi am hmm. waaye booy seet ba seet xaalisu bitim réew hmm. li ci barkeel barewul train de vie aussi ñoom itam bi ñuy vivre foofu xam nga ñun Sénégal on a beau dire man duma encourager kenn mu jël bato bi ndey laa man duma encourager sama njaboot ne leen jël leen bato bi parce que bu ngeen demee li ngeen di am foofu du ngeen ko am Sénégal déedéet man duma def loolu duma leen di xiir ci rey seen bopp waaye dama lay bëgg a wax ne même suñu amee euh, bu ñuy seet comparaison kuy gagné mille euros en Europe muy six cent cinquante mille francs ak kiy gagné six cent cinquante mille francs CFA Dakar bokkuñu daanaka dafa mel ni euro bi ngay gagné moitié ngay gagné en CFA. madame quand tu gagnes 1000 euros l'allocation c'est. loolu laa lay bëgg déggloo ma ne la euros boo yónnee ay 200 euros. mooy 130 000 francs CFA il ma dégluwul ci loolu laa ñëw dama lay bëgg a wax ne 1000 euros booy gagné en Europe équivalent bi boo ko gañee au Sénégal dafa mel ni xaaj bi nga gagné en Europe foofu laa bëgg a dëkk. Euh, c'est discutable madame waaw xam nga lu tax ma wax loolu parce que train de vie bi ak coût de la vie en Europe dafa gën a élevé suñu bos hmm. xam nga Sénégal mën nga bañ a am añ fexe ba dem sa kër yumpaañ wala sa kër nijaay mi di fekk la fa nga raxasu lekk damay dëkk hmm. damay dëkk parce que hmm. yow dafa da nga bëgg euh, jiitu ma ci samay réponse moo tax léeg-léeg ma di la poser question yow itam dee wuyu sama question waaw <laughs> waaw ñu ñu ñu ñu ñu ñu xuus tuuti jëm ci mbiru artistes yi. mais attention moi je suis pas encore satisfait xaw ma ndax yéen li mu wax doon na leen. situation bi ah ñoom ñoom dañuy tàcc. <laughs> mais mais mais pour les pour les téléspectateurs pour les téléspectateurs alors Diouma Dieng nan ngay def euh, ba immigré yi ñibbise Sénégal avec une sécurité économique. man su fekkee ne. ñi bëgg a ñibbise bopp. waaw su fekkee ne woon ne euh, bu fekkee ne man fal nañ ma te yaakaar naa ne sax man nañuy fal.

ay logement xam nga nit ki bu fekkee dafa yàgg bitim réew te la plupart d'entre eux du ñuy ragal ñibbi si du ñu am dëkkuwaay ngon li ñu leen war a jëkk rek mooy les problèmes de logement à faciliter c'est très important déjà si tu as un toit déjà dina tax sa xel nekk ci ñibbi au moins di nga am foo fanaan man foofu laay jëkkee c'est très important c'est très important très bien alors euh, Latir ak ñi nga xam ne bëgg nañ fa des seen sécurité parce que euh, Espagne rey nañ fa ay nit euh, Italie également Afrique du Sud sécurité des na daal si seen wàll foofu ak racisme bi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel développé ñi fa a toog racisme bi fépp la aujourd'hui ci nit ñu weex ñi mais globalement la sécurité des immigrés nga nga toog nga toog bitim réew sa xel dal doo ragal pour sa pour ta vie sécurité bi fa bi fa bi fa bi ñàkk hmm. manqué fa moo nekkat Sénégal rek bu leen wax bitim réew rek hmm. insécurité du ñu ngi rey fii doomu sénégalais sur place hmm. insécurité aujourd'hui dafa développé dafa développé dans le monde entier hmm. parce que xiif a koy indi ñaare ak mar bu nit amul lu mu lekk amul lu mu jox euh, ay waajuram amul lu mu jox ay rakkam ak i mbagam ca kër ga yàlla daf koy dafay tante wu mu dal di verser wu sur la violence léegi-léegi dinay pousser nit ñi di ko def te fekk du ñu nekk ni ñu bon nga gis itam en Europe koo xam ne ñu ne dafa détraqué comme euh, le meurtre qui s'est passé double meurtre à Florence xëy na c'est un déséquilibré mais on ne pas rentré dans le vif du sujet lu lu tax mu nekk un déséquilibré lu tax mu nekk ko xëy na sonn na xëy na amul xëy na gis naa ay waajuram ni ñuy sonnee woon ci moom te mënu leen a defal dara wala xëy na amatul ay parents yu ko jàppale mu versé wu vers la violence ñu ne dafa déséquilibré xam nga ku rey nit rek wala ku dof dof lu télévision rek wala di dox di jayu ja yokku ci mbedd mi rek ñu ne dafa déséquilibré. non noo dalale xel Sénégal yi fi nekk foofu noo dalale seen xel. li may dalale seen xel daal mooy ak li ma leen di ñaanal yàlla na leen yàlla dellu si waat ci pays bi. ku leen ñaanalu loolu ñaanalu loolu loolu qu'est-ce que loo xam ne dafa capital. ci suñu programme moo tax may wax. nee naa la nañ leen wutal ay logement parce que non non ñi ñi décidé toog foofu. ah ñi décidé mais ku décidé toog foofu bëggul ñibbisi man li ma ko mën a wax rek mooy euh, comme ni ma leen ko waxee xaalisu bitim réew lu mu bari bari bari xaalisu CFA bii ñuy xeeb moo ko gën a barkeel parce que ñun dëgg la ne suñu train suñu vie metti na waaye ba tey ca ne dégg loo mu ne la añ fu mu la fekk ba fii Sénégal pays de la teranga bu la añ fekkee fenn ñu ne la kaa añ léeg lekk nga woon nit sax mu ne la ça va ça mais boo insister mu toog lekk très bien bon Diouma Dieng Diakhaté candidate à la présidentielle Latir on revient au Sénégal waaye euh, avec euh, <laughs> ñu ñëw si seen mbokk artistes yi démb rek ndeysaan dafa am benn artiste bu daaray Kocc bu wàññeeku ndeysaan euh, waaw ñu ne ñu ne mais man li mu si gën a kii rek dafa ma dañ ma ne dafa tëdd feebar lu yàgg ndeysaan kenn te fajowul yow boo jëlee nguur yi ñëw artistes yi bu léegi nit ñu ñu ngi jooy yow loo naar seen seen seen seen kii artistes yi il ñu jàppale leen il faut du ñëpp am wërsëg am na ñoo xam ne def nañu seen preuve yàlla ubbi leen bunt su wërsëg macha allah ba du ñu jooy xaalis du ñu lebi mais du ñëpp gis nga léeg-léeg nga gis ci xale yi nga dem xew gis xale boo xam ne 15 ans wala 18 ans mënal la ko way ba yow da nga naan c'est pas possible te bari na fi mais nag amuñu moyen. amuñu moyen alors Diouma Dieng y' a aussi euh, y' a un problème par rapport ak artistes yi la wax léegi c'est une politique culturelle globale. Euh, ministère de la culture gis nañ ni dafa amoon instabilité bu doy waar ba nga xamante ne ni euh, lu ñu tàmbali du ñu ko àggali yow nan ngay nan ngay def ba faj feebaru secteur culturel boobu Sénégal amatul sax salle de cinéma. secteur culturel bi il faut que ñu bàyyi ministre yi ñu liggéey wane seen preuve mais depuis l'alternance y a combien de ministre de la culture boo tàmbalee bëgg def sa fondation. birig yéeg yéeg ñu jëlee la fa birig ya nga jotoon a yéegal daanu mooy li ñu wax léegi donc la politique culturelle bi nga bëgg indi pour faj ko pour faj yow culturelle ñoo koy faj xanaa bàyyi nit ki su ma jëlee un ministre de la culture dinaa ko fa mu liggéey ma xam lu mu mënee ak lu mu mënewul sa programme la bëgg a wax sama programme mooy dimbale artistes yi yokk budget de la culture yokk budget bi ndax yokk budget bi dina doy kan concrètement concrètement looy def. parce que parce que Latir li mu la wax léegi mooy artiste bi dafa tëdd lu yàgg feebar. kon ça sous-entend amul woon lu mu faju donc euh, voilà. Hmm, hmm, hmm. man sama coobare bopp man sama bopp sama bopp laa wax de en général su ma yëgee ni nit feebar na waxuma la wax artiste rek sax lu ma mën dinaa ko ko def te ko wax. pour jàppale ko. way waaw loolu moom. alors juma ji mais ça c'est à l'échelle personnelle. mais xam nga koo jiite réew mi. moo tax nag dama lay bëgg a indi ci jiite réew mi. Mm-hmm. ku mënul jël sa xaalis def échelle échelle personnelle bés boo jiitee réew mi doo ko def. ale li ñëpp la de. tabe. Mm. tabe. Mm. tabe sa alal mais tabe sa alal. déedéet tabe tabe tabe laalu mën nga bañ a. wax nga fi tabe léegi nee nga ko tarifaati fa ñu jox ne. loolu tabe dafa déedéet mën nga tabe. Mm. ba pare teg ko ci yoon. am xol te teg ko ci yoon xam nga tabe bi may bañ te tabe yàq waaw di maye rek di joxe rek ku la ne salaamaaleykum espèce sax fa fa la ñu yóbbaale. voilà donc donc très bien donc xam nañu ne euh, Latir Diouma hmm. euh, également mu ngi laaj ci réewum Sénégal. mais ay ay lenn ci ay employé peut ñu ngi may dégg amoon nañu ay problème ak moom parce que ñoom mënuñoon dundal seen jabar puisque fayu li mu war li mu war a woon ak ñoom yu ma jeg man xool nga ma xool nga ma ko xool nga ma ba sepp li ma man may ameel employé xaalis a priori mais ñoom ñoo ko wax du man de leeral ko askan wi du man de leeral leen ko waaw mbir boobu mbir boobu léegi ñëw si waaw ma ne xam nga lu ma leen bëgg a yëgal j'ai 31 ans dans ce métier bu ma yëgoon ne j'ai eu plus de trois cents ou quatre cents qui sont passés chez moi pourquoi pendant 31 ans aujourd'hui